yi kaas yi dañoo dog dañoo dog waaw bii daa dog ah. waaw xam naa ne ñoom jam waaw ak euh, euh, fi ngay fanaan nu mu tudd fan ki nga naan fi ngay fanaan maan woy euh, pël bi waaw pël bi nu mu tudd balde balde moo mook jam am na ku luñ ci def kon dañoo lekk beñe naan si kaas yooyu la ñuy def di nekk ah. ci télé bi di jënd ay beñee ki fataaye di jàpp kaasi ataaye yi rek di di di di di niinal waaye Samb waaw man de li ma gis si Sénégal may bëgg a yéem. muy lan alaaji. Samb tiit naa de. alaaji lu la tiital. Samb yaa ngi fàttaliku taa dagg bopp ya suñu jamono. moom lañ ñu daan tiitale. yéen nga ne dafa ñëwaat ci dëkk bi. reen di waate. xale yaa ngi dem. way juri hmm? nañ bàyyi xel seen doom yi. Hmm? ku ci nelaw xale laqal la nga dàq ko ne ko ca biti. daman fooyi. doo xam fu mu jëm. loolu lañ leen wax. xale bu mënul wax nga yónni ko bitig ba. waaye yow loo juree doom naan ko yaa laqale. dàq ca la. billaay yaa laqale seen coow li ci biti ki daf maa sonal seen coow li ci biti dàq ko ñu sàcc ko sàcc rond point gondal gi sàcc ko nag léegi sa papa day teew sax ñu lay sàcc waaw bu max sa yaay mu daanu ñu jël la dugal ci oto dalak yow papa ji dégg naa topp na ko huit heures ci guddi ba sept heures du matin ndey saam di wër oto ak doomam dégg nga loolu xoolal kañu sàcc ca tëngéej xam naa ne mënul raw suñu xam nga suñu armée suñu Euh, takk deri dañoo aay. ñooy xarañ waaw jàppe ji ko Casamance xaw ma ca frontière Guinée Bissau xoolal taalibe yi ñuy rendi hmm. te xale yu ndaw yi la ñuy jàpp di rendee ka sàcc rek. way jur yi toog. ku yebbu wut sécurité sa kër de. ah man de ki ma ci yor dama ni ko. ku la la xam ku la xamul bu la nee na nga def sax ko ne maa dëgg la waaye jur yi foog ñu ubbi seen xel yi. man de kama jur. Ah. nee naa ko ku la na nga def te xamoo ko sax bu ko ne maa ngi. dëgg la jamono yi wuyu kontaan naa de. Ah. li ngeen di waxtaanee am solo. Hmm. xam man ci buntu kër gi laay tool di dégg. waaw da ñuy yëg waaw da ñuy may xel. waaw dama leen di bàyyi xel xam fa ngeen yam ma ma ma songee foofu. tey Ndiaye. ndax nee nga xale yi dañ leen di jël di yóbbu. sàcc ah waaau fan nga daanelee sa wax. ku yebbu wut sécurité. ku yebbu am sécurité. waaw. dafa bokk ci doomu aadama. waaw sécurité sécurité. Mhm. dafa mel ni nag dafa manqué ci réew mi. ay <laughs> ilaha illallah jub nañ ci. lan. sécurité nan lañ ci jógee. ana sama fay de kafut. waaw mais alaaji sécurité bi du takk deri rek. Ah, sécurité bi wut caméra ci mbedd mi la. moo am dégg de. caméra yi fees dell ci dëkk bi. ci koñ yi ci banlieue yi fu ne. doo nit fu ne dañ faa war a investir takk nga xam ne fu waay tëll ñu gis la ngay def. looloo waral fépp la ñu war a def ni ñu jógee ci làmp yi di leeral koñ yi. nañu def lamp bu ñu benn làmp bu ñu samp samp benn caméra de surveillance. mani ñuy se koñ bi. <laughs> xam nga lu wax ji. waaw takk der yi doy ñu sécurité. kay moo tax agent ay nañu mais dañu am lu leen am na nag ñu fi nekk di leen dimbali. waaw muy ñan di leen dimbali nag. am na ñu ci am am na ñu ci amul formation. te ñëpp a war am formation ngir sécurité bi gën a. wóor ci Sénégal. waaw du dëgg. ah par contre looloo waral tey. waaw ci ma andi. tey ngeen xam ma ma maay ndaanaan. waaw. mais fi ngeen toll fi ngeen nekkoon fa laa ñëw. maa indi woo fi sécurité sécurité laa andi. maa indi woo fi policier. Eh, biir déglul ki ma andi ancien policier la woon. biir noo jaata ah daa nekkoon. Ah. mu daw dem Paris. daa daa daa daa daw. daw daaw mooy daw ci armée mooy da ngaa déserté. daa déserté dem Paris ibbi foofu. kon am na fit de déserté dafa pare duggaat ci réew mi. pare na léegi fu mu ibbi waat beneen armée la am France. ah. xam nga lu ko tax a ñëw. jëlee jugee Paris. ñëw Sénégal. ngonal bi. ngonal li moo ko tax a jug te bu fi jugee léegi léegi day ñibbiwaat léegi. Ah. ndax nee na sécurité bi insécurité bi am ci Sénégal faw ma ñëw wax ci. Samba suñu ngoonal li nag la suñu mag la xam ngeen ko yéen ñëpp nu mu tudd muy sama grand frère Papa Ndiaye Papa Ndiaye Papa Ndiaye bokk nag bu Youssou Ndour di way du ci déedéet sécurité ah, ah, sécurité kontaan naa sécurité baaba ngi nekk naa sécurité xale yaa jaay na santam sant ñaan waaw ah? ndax ami ñaan xam tax ni ngi a ngonal ñun ngonal nañu sunu bopp. kaay toog Thiès. ngonal nañu cees na toogal. Thiès kay. grand. waaw tu es venu au bu ko fi neexal nag dalaa ñëw nee na da ngaa nekkoon ci armée gi ba ci yàgg daw. dinaa ci ñëw waaw kay. dinaa ci ñëw dama wuti woon xam-xam. dëgg la. ah waaw ba ngay xam-xam tàggoo nga. ko mën tuutee. Ah. ba siin comme ni ñu koy waxee. waaw donc loolu la bu nga ne léegi naa ko jëriñoo ñëpp. dëgg la moo waral. waaw. ma xool xam senegal fi mu toll doy na waar la tiital tiital ma. Mhm. tiital say wayjur say wayjur tiital samay wayjur. waaw. muy insécurité bi fi am. Mhm. dëgg la. ma woo ko téléphone. Mhm. ne ko loolu sa domaine la. xam nga ah, ko loolu la fay def. mën nga ko ñëwal waxtaan ak ñun delluwaat Paris mu ne ma dinaa dagg billet ñëw maa ndax yéen delluwaat. waaw Cheikh moom nu muy nu muy ci loolu. na nuyoo na nuyoo grand nuyoo. Hmm. kontaan naa de sagal nga ma. non foog ma sagal la. waaw donc Pape Ndiaye la Pape Ndiaye sama surnom la. waaw sama tur dëgg Birame Ndiaye la tur. Birame Ndiaye ah, voilà donc jaxaw laa juddoo comme yéen jaxaw laa mm-hmm. ah, après démarre comme yéen. comme yéen na naan parce que. am ñoo dem guerre ñu. am commissaire de am am nañu woon fit boobu. waaw waaw. après armée rek waaw. après armée police quelque temps après ma dem tugal. donc bu ma demee France nekk fa année yu bëri. Mhm. après de formation yi fa nekk yëpp. Mhm. parce que ay niveau le premier niveau deuxième niveau troisième niveau. troisième niveau ci la formation yi yam en fait. waaw moom la ñu wax euh, chef de service sécurité. waaw SIAP 3. Hmm. du coup ba ma ko defee après mu commencé di former di former tubaab yeeg ñu ñuulee africain yi ñëw tout ça. waaw mu ubbi fa école. Mhm. benn école. nga ubbi mm-hmm. la fa donc école bi France <clears throat> képp France dafa may loi yoo xam ne mënoo yeewu suba da ngay nekk agent sécurité. waaw wala ngay nekk gardien. mënoo yeewu suba nga am sa société mu am plus de cinquante personnes te amul koo xam ne amul formation secourisme. waaw donc formation ay électricité. ay vidéo surveillance comme man su ma nekkee fii. ma toog bëgg xool samay bureau yi nekk Paris. lan moo fa xew. instant bi di sama téléphone portable damay xool. fi nga toog nii nii nii nii. ma toog waaw mën ngaa xam sa bidon ya nekk Paris. maa la wax sécurité ku fa mën ci sa téléphone nii. voilà nii nii nii nii. waaw ku fa mën loolu balaa émission bi di jeex dañ ma ko war. tubaab bi ah looy xooli bidon jàmbur yow. bidon yi kenn nekk foofu mu toll nii. waaw wàcc nañu. waaw wàcc nañu instant bi wàcc nañu. waaw ce qui fait que su fa gardien kenn duggoon léegi. waaw wala même muy muus. wala fenêtre bu ubbeeku. alarme bi day déclenché wu. bala ngaa dem moom mu yóbbu lépp de non loolu problème parce que dangay ngay. Mhm. dama fa teg ñoo xam ne jege nañu centre bi. Ah. danañ mën a intervenir à temps. ndeysaan. Ah. alarme bi déclenché ñu yegg si donc formation yooyu yëpp moom laa doon moom laa njëkkoon ubbi na école ci laa ubbi beneen deuxième après ubbi waat feneen Maroc parce que comme amul Afrique fii. Maroc tamit ubbi nga fa. voilà. Ah, da ngaa ubbi école ba ca France ubbi ko fii ci Maroc. Maroc parce que dafa am yi doon ñëw ci man di formé wu. waaw ñoom ñu ne. sonn nañ di fay xaalis di ko gars yi di dem France di formé wu. Mhm. résultat des courses ñu ne léegi ñu la gën a arrangé mooy ñoom seen école bopp. Ah. ñu ne ma léegi foog nga ñëw jàppale ñu suñu ubbi ko. Mhm. ay anciens officiers yi nekkoon ci euh, aéroport Tanger. waaw donc du coup ma ñëw jàppale leen ñu ubbi ko foofu. mais yow sa école la. maag ñoom ñoo ko bokk fu mu toll nii. Ah, ok voilà léegi bu Sénégal bi bi nekk Paris ñaari nekk Paris moom man maa ko moom. Hmm. waaw lu tax nga Sénégal fii yow. ah <laughs> bon Sénégal parce que première chose mooy. formation insertion. mooy insertion waaw mooy. mooy lan déjà formation insertion. ok formation insertion lu ko dox dugg leen la. waaw dañoo gis ne euh, man ba ma nekkee Paris souvent mhm. sénégalais yi africains yi dañuy ñëw sama école di fa Mhm. ñu leen di fay xaalis di dépenser xaalis avion di dépenser. Sénégal lañ doon jóge di ñëw. voilà donc da leen di fayal ay per jeune tous les jours ñu fay leen ñu nekk ci hôtel bu ñëwee jàng si ñu leen di fay muy africain yi fa nekk ku mu ci doon parfois tamit ñu nekk Sénégal fii dañuy soxla formation ñu yónni julee tubaab fële ñu ñëw fii su ñun ñu fay leen lu bëri. Mhm. donc ba dem tubaab bi duñ xam dara sax. voilà parce que tubaab la rek bon la mhm. léegi ma ne loolu au lieu loolu ñu def loolu. waaw néegu ñu def ko suñu mhm. kenn du déplacé wu di dem Europe. Mhm. wala africain yi di dem Europe. Mhm. africain yi nañ ñëw Sénégal. ñu ko fi def. Ah. loolu moo tax ñu ubbi ko fi. super. Ah, yow nga moo tax ñu ñëw daal ubbi ko fii Sénégal. parce que da ngay éviter nit ñi ñuy fayati xaalis di dem di defi formation bi foofu mais formation bi lan la am lu spécial. parce que fi gis naa fi ay agence de sécurité. waaw ñoo xam ne dañuy def sécurité comme il se doit. Mm-hmm. mais moom lu tax mu ne école lu tax ñëwul ubbi kër goo xam ne day joxe ay agent de sécurité au lieu mu ne école buy former agent de sécurité sunu sécurité yi nekk fii sunu agent de sécurité yi nekk fii da nga gis ni. amuñu formation amuñu formation wala seen formation dafa des wala dafa am loo ci war a mottali. agent sécurité fii da ngay yeewu suba kenn ne. nekkoon armée wala nekkoon fenn wala musul nekk fenn. wala voilà mu yore dooleem. waaw suba ne moom agent sécurité waaw donc yatam la yore wala sifleem wala lu ma doon nit ki. waaw sàcc dara mu dàq ko jàpp dóor. waaw noonu. te noonu parce que booy dàq nit. nit ki daw génn ci mbedd mi. toppaat la. bu duggee ci mbedd mi. foofu ça appartient ce qu'on appelle c'est la voie publique. waaw police ko moom. Hmm. agent sécurité bi xamul loolu. agent sécurité yoonam nekkatu fa. yoonam new fa moom lu mu war a def notion de flagrant délit mooy am parce que gis naa fenn. Hmm. tout de suite dafa war a woo officier de police judiciaire maanaam woo commissariat. Hmm. am warul liggéeyam dafa war a yam ci batiment bi mu nekk. pas ci mbedd mi. agent sécurité bu nekkoon fii tey suba Cheikh Ndiaye. am ab gardien Cheikh Ndiaye daanu fi xam léegi gardien bi war na mën a def ay gest premier secours parce que gardien bi su ne dawee day woo pompier yi pompier yi balaa ñëw ak embouteillage Dakar rek taw bi ak tooyaay bi yëpp. waaw ah, kooku mën naa loolu ah yow da nga leen di jàngal sax jàngal leen ñi nga xam ni booy garder nit mu sikombe wala mu mu dëgg astafurlaa mu mu xëm wala mu am malaise ñoom mën nañu def premier secours yi. voilà parce que su ko defee. dana mën a arranger pompier pompier bu ñëwee dañuy complété. ça veut que mën na sauver vie nit ki avant pompier yi ñëw. bu xamee lu ñu defee réanimation cardiaque par exemple. day def réanimation cardiaque compression thoracique comme normalement ba pompier yi ñëw. kon loolu du am sécurité rek day secourir. en même temps waaw léegi Pape mhm. man ma nekk si kër di garde mhm. jékki-jékki du coupure générale kër gi am problème courant xaaju guddi mi teel coupé. Mhm. man ma nekk gardien ci biir kër gardien bi buy gardien bi mu war a xam bi commencé di garder fenn waaw muy sa kër muy immeuble muy assemblée nationale hmm. dafa war a xam plan wu établissement bi de A à Z hmm. pour de secours yeeg voilà tout pourquoi parce que évacuation su amee moom moo war a évacuer nit ñi hmm. te évacuation dafa am ay normes. mënoon na da ngay évacuer assemblée nationale di leen jàllale ñu traverser rond point bi dem beneen côté ba. pourquoi parce que ay oto ngi ñëw. accident mën na fa donc dafa dañoo war am benn point de rassemblement boo xam ne dafay nekk foo xam ne fa leen yóbbu. Mhm. xam issue de secours yi fu mu nekk. Mhm. ñu identifier ko tout ça. Mhm. ci liggéeyam lo donc loolu lépp bu ñu ñëwee école bu ñu koy formé dañ ko ci formé loolu lépp mu xam ko. nga xam ne warul ñëw rek ex naan moom dooleem la yore taxaw na nii. kër ga di tàkk. kër ga di tàkk. te war na mën a xam bu kër gi commencé woon tàkk. war na xam nan nañu fay. waaw parce que gardien yu bëri voilà gardien non ndox baaxul eh. ndox am na ci lu muy jaar ndox day fekk muy feu sec feu de bois feu de papier loolu ndox la si wut mais bu dee début d'incendie feu origine électrique muy courant wala diwlin mu sotti ci ndox da ngay gën a taal kër ga da ngay kër gi alam suñ ko formé wul du ko xam mhm. da doon jéem a def lu baax malheureusement yokk tàkk-tàkk ba maanaam daal yow Pape bu ma lay dégg man bu may comprendre mhm. yow daal système bi ngay école bi système bi bi muy bi muy bi muy formé nit kuy garder ça n'a rien à voir ak gardien Sénégal yi fi ne man ñëw ma fi pour ne gardien yi kenn formewu leen lu ñu def baaxuñu ñëw ma fii pour waaw waaw xam naa di ma lay déglu parce que yow léegi dafa wuute waaw dafa man dama gëm ne man dama ñëw dama gëm ne am na lu fi nekk te mën nañ si yokk mën nañ ko yokk mm-hmm. parce que fii am na fi ñoo xam ne formé nañ leen ba pare ñu fi nekk ñu jóge fii ñëw ci man ak yeneen école muy Europe muy États-Unis Sénégal am na matière grise boobu ñoo xam ne nekk nañ fi te mën nañ liggéey bi. ok c'est que c'est tout simplement ñu jox leen possibilité yu ñu mën a exercer. man de alaaji dafa am kuñ ma wax barki dem Ablaye Gueye sama xarit boo boobu nekk ca Thiès Ablaye Gueye. waaw waxuma Ablaye Gueye sama mag de. waaw Ablaye Gueye artiste. ñoom dañoo bàyyi woon ay mat la ci benn bërëb. ak ay matériel mhm. bu màggal jotee ba màggal jot daal lañ koy ubbi jëfandikoo matériel la mu ni daal keroog dafa toog kañ fa tegoon ni ko ubbi lu bërëb bi waaye jëlul nu dara cinq minutes mu ne ko ah dama la doon wax ni mat la ya dem na mu bëri ci gardien yi nga xam ne fi mu toll ni jiiñu doo ko waxuma ne dañ koy kii bëri na trop nit ñuy jël gardien di ci fay weer te ñu leen di sàcc wala ñu ñu ciy def anim boo xam ne du naka su dul noonu. Mhm. yow boo jëlee gardien bi. yóbbu ci yoon parce que war na tem parce que fi nga sàcc bu police ñëwee dina ne ana gardien bi. gardien bi war naa témoigner. Mhm. askan wi dal sa kaw ni dañoo ñëwal doole gardien yi. Mhm. loolu lan nga ci xalaat yow. ok gardien bi boo ko formation rek. gardien bi boo ko indee mu formé ko déjà ba pare. waaw euh, société bi koy employé société de sécurité bi. waaw personne individuelle bu koy employé dafa war a am ay jumtukaay yu muy def si bâtiment bi c'est-à-dire système de badge déjà soit mën na nekk ay badge soit mën na nekk biométrie c'est-à-dire que gardien bi mën nañ ko installer loolu c'est-à-dire que empreinte am lay teg pour porte bi mën a ubbeeku mhm. su bunt bi suñ ko ubbeeku suñ ko moom alarme bi da déclenché wu donc gardien bi alarme mënuñu ubbi sàcc fa dara sans mu xam ko parce que alarme bi déclenché wu ça c'est la première chose deuxième chose dafa am système de vidéosurveillance bu installé sur place mhm. caméra yi mën nga ko effectivement donc caméra yi mën nga gardien bi muy kanam mën na police bu ñëwee day saisir juste CD yi remonte waaw si si mais ataay moom ataay mais sa sa taay bis ko neex. loolu neexul rek. waa ñamal joxe ma man xaar ñeneen. man mënu ma moom. Ah. non non non non Samb. ah kon baax na. non non baax na waaw ok alaaji joxal baro. dama waa aca ñëwal nga ni nag yaakaare woon du noonu. léegi ah, caméra bi caméra yi surveillance yi. donc mën nañu caméra yi dañu enregistré image. waaw. image yooyu suñ koy enregistré. Hmm. en fait gardien bi ci boppam. moom. gardien bi du am possibilité. weddi dala du am possibilité. waaw CD bi ñu installé ñun ci foofu. <laughs> yow yow yow yow da ngay wax ci waxu sécurité normal ka dem jël ci agence bi sécurité nangam sangam sangam am na caméra bi mais man mi nga xam ne da ngay dem rek fekk as waatu toog. Samba Surabane moom la lay expliqué la loolu ma terminé moom su la Sénégal su ma la formalee gardien ba pare dama la tegal système boo xam ne. waaw sa gardien bi yow. waaw. caméra yi day enregistré gardien bi bu ak copain bu ñëwoon sàcc tey gardien bi du mën a effacer film bi parce que amu ci accès yow mi borom kër gi yow naka am accès yaa am code yeeg yëpp yaa koy jox police mu mën a remonter génne image gardien bi du ko effacer parce que copain wu Cheikh Ndiaye la xam nga baaxul hmm. bu ñu génne woon matelas yi gardien bi ne sama xarit moo ko génne xaaral ma effacer ko rapidement ah, loolu du ko mën parce que mi ngi ci biir en fait. Hmm. très bien yow loolu ngay liggéey. Euh, waaye yow yow n'importe quelle personne mën nga ko jël mu def ko mu def formation. n'importe quelle personne non attends waaw kon première condition bi mooy kii kii ñuy formé. waaw dañ koy laaj certificat médical. waaw il moom certificat ah, médical. ah loolu yooyu médecin bi attesté na kii wér na physiquement. d'accord parce que doo jël koo xam ne feebar koy. niveau d'étude. niveau d'étude il faut que au minimum mu mën a lire écrire. su mënul lire écrire formation bi dañoo def beneen aspect boo xam ne aspect olof la. waaw parce que ñu déggul tubaab ñu defal leen formation ak ay image mhm. ak ay photo ak explication yoo xam ne suñu langue maternelle la. ba nga xam ne ñooñu. luy réanimation cardiaque luy position latérale de sécurité luy jël extincteur xam ban extincteur la war a utiliser. ak yooyu. Ah? arts martiaux ay tir ak yëpp non moom du suñu domaine. parce que kooku mhm. réservé la. waaw ah, gardien ak fetal ñoo war a ànd. non loi dafa am benn gardien dafa gis ay sàcc daw. ñu ne ko looy daw mu ne matériel ya sàccee wàcce moom a dawlu. Ah, mais moom laa lay nii. parce que parce que amul formation. yet la yor non on expliqué nii du question non fetal boo koy yore. waaw dafa nekk ci anam yu leer état bi ci boppam. waaw moo lay jox autorisation de port d'arme. da koy jox autorisation société mais non dañuy laaj ndax yéen seen école boobu dinañ fa former nit ci arme. non lépp non mu suñu domaine ñun suñu domaine. mooy gardien bi xam li mu war a def. Mhm. xam nan la war a garde fan la war a yem. foo xam ne parti bi fii la yem. nan la war a waxee nan la war a waxee parce que Sénégal da ngay gardien bi da ngay ñëw parfois. am nu ñu fuwee. voilà waaw loolu ñu wax palpation de sécurité. palpation de sécurité loolu yëpp mais mais xam nga noo bëgg a xam. Hmm. état bi parce que si je comprends bien France bi nga jógee am fa ay école hmm. defe naa ne nguur googu jàppale na leen. waaw hmm. mettre nañ leen ci ay conditions yu wóor. jox leen kayit yi ngeen soxla jox leen lépp. est-ce que état Sénégal. lan lañ war a def ci loolu pour pour pour ñu professionnaliser les choses. bon état première chose bi mu mënti def mooy. Mhm. texte yooyu sax am na fi dañ ko appliqué. waaw première chose bi mooy soit arrêté ministériel. Mhm. ministre de l' intérieur ou bien ñu ko ñu formé bu ko kenn jël. voilà mhm. état bi yow ne kenn kuñ fi formé wul dooñ ko jël. c' est dire que ku mu mënti doon. muy kër jàmbur muy société de sécurité. muy concert. képp ku taxaw foofu parce que formé nañ ne am nga sa benn carte professionnelle buy wane na sa tun sa numéro carte d'identité sa photo ak société bi lay employé yëpp nekk si coordonnées yëpp yu wane na yow def nga formation bi da telle date à telle date. ak diplôme yi ak diplôme yi lépp mën nañ ko vérifier. mais ngeen joxe diplôme. si mais mais mais tey jii loolu. seex loolu war nañ ko def. bu ñëw mi de waaw waaw tey jii état bu defoon loolu tey. pour ñu contrôler loolu. waaw. nan la état bi war a def loolu. parce que loolu yomb na euh, yomb loolu xaalis la. pour contrôler ndax yow gardien bu normal nga utiliser wala du yoon la. waaw ana patrouille police ku ñu fekk ngay utiliser gardien boo xam ne xam nga ni defoo sécurité eh, daan yi dal sa kaw. waaw. waaw waaw. waaw mais police. policier yaa ngi fi di contrôler. d'accord naa ci li nga wax mais da ngay xam ne police mission dafa bëri. waaw déedéet mais mais mais seen bi seen bi seen bi. léegi nga dégg incident bu am ci kër nga dem vérifier fekk gardien ba du ko ñu formé. oui pour rëqee ndigam bu baax ak ka ko jël. oui mais état bi bu ko ñeneen déggee dootuñu ko def. état bi mën na def beneen solution. muy lan man sama xel mu gàtt. waaw pour man état bi su ne dafay jël ay contrôleur. waaw dafay impliqué état bi di fay contrôleur yi. waaw c'est-à-dire budget te ko xaalis la. waaw état bi day arrêté bi muy génne par exemple. da naan léegi société de sécurité yi ak képp kuy employé sécurité mm-hmm. agent sécurité mm-hmm. da nga am taxe booy fay par mois mm-hmm. c'est-à-dire taxe boobu automatiquement day dem ci keesu état waaw kees googu ay millions lay nekk parce que ñu employé société ñun ñu bëri ay milliards léegi xaalis boobu donc mën na si emploi ay nit c'est-à-dire que ñi képp kuy wut sécurité ñëw yaay cotiser pour état bi pour mu fay contrôleur mais nag lenn am na ci de seex mm-hmm. di ngay gis ni nit ñi dem jël saameex ci mbedd mi jox xob yat ak siffle mooy gën a yomb ci ñoom dem ci agent de sécurité yi di di embauché nit di fay agent oh, mais dama lay expliquer benn benn affaire yow boobaa waaw heure bu ñu la hmm. sécurité bi par exemple comme comme Europe agent sécurité bi par exemple day fay cent francs sur le champ ou bien ñu suspendre ko dindi kayitam yëpp. jox ma kaas bi yow mi ko yow mi ko employé. tey laajoo ko kartam laajoo ko kayitam. waaw yow double lu ngay fay. muy ay daan yu ñu lay teg. waaw non waxuma daan yi dama ni da ngay gis ni ñoom foofu ko si ce que du doon problème. parce que est-ce que am na ñoo xam ne bëgg nañu gardien te amuñu moyen yu ñu fayee agent de sécurité. ñu ñu normal ñu bañ wut gardien. foofu tamit est que du doon problème ki état bi. su ma yeewoon suba. waaw man. même na état bi dama leen bëgg a liggéeyloo taw ma lu ma leen fayee. waaw. du ma leen ma la liggéeyloo. parce ma ko. Mhm. nit ki mënoo ko jël di ko liggéeyloo. ba pare nga ne doo ko fay. ba ci mindaan yi. mindaan yi sax xanaa xam war nañu wax état bi war na jóg ci ni ku la indiwul këyit indi lu la carte d'identité inscrire ko waroo ko jël mu. mindaan agent sécurité buy war a liggéey war nga am carte professionnelle. ak mindaan yi dañ leen ñu liggéeyloo nit. ay weer rek ñu la dàq naa la en loolu. du question agence sécurité bi mais day aar ñëpp ñu nekk ci kër gi wala ñu nekk ci bâtiment bi. ça prouve que ki leen di fi nekk ñoom di leen garder mën na leen tenir en compte mën na leen sauver mën na <laughs> évacuer mën na jëlee extincteur. ay waxtaan bi waroon naa mën a yaatu. mais waaw man fi ma ñëw mooy. waaw par exemple école boobu. waaw ndax ñi ngeen di former. waaw bu ñu génnee yéen mën ngeen leen a. dugal ci service yi directement pour ñu. ok waaw ndax diplôme la ñuy génnee wala. grade la ñuy diplôme la ñuy dafa am diplôme par niveau la. am na diplôme agent sécurité. waaw am na diplôme chef d'équipe. koo xam ne mooy chef group agent sécurité yu nekk sur place. waaw am na beneen diplôme boo xam ne diplôme chef de service la. par exemple boo demoon Radisson. exemple mm-hmm. dafay am benn chef de service de sécurité incendie. waaw SIAP 3. Mm-hmm. moom bi nga xam ne. diplôme chef d'équipe la kooku mhm. bâtiment bu muy garder chef de service la. d'accord ah. waaw waaw léegi sunu xale yi question wu fin bi sunu xale yi. sunu xale xale yi réew yi. waay réew mi ñu ne. Uh-huh. ñun dañ ci am tiis ak njàqare te ku jur doom xam li ci jur tiit nga. Mhm. ñu ngi leen di sàcc. Mhm. ñu ngi leen di rey. te sàcc yu yomb lañ leen di te kay sàcc ci mbedd. xam na ni am na ko xoolul moo tax muy sàcc. lan nga xalaat yow en tant que expert ci sunu réew yi. nga xam ne fi mu toll nii insécurité bi daf fi lal. maa am gan. allo. wa saay. foofee la taxawal taxawal seex a ngi ñëw. seex dama jëlal ni ma sama gan. waaw bi nga ne waaw léegi li ma la bëgg xamal mooy. seex dama tëju. affaire de caméra yi waaw bëgg gunge waale bu caméra yi waaw. ci mbedd meeg yeeg surveillance bi. waaw ça implique déjà ñu mën a am courant bu koy fonctionner. courant bi waaw. boo installé ay caméra waaw te say courant di coupé forcément doo mën a. doo mën a dem donc base bi loolu la. caméra yi surveillé la ñuy njëkk a sàcc sax maa la wax loolu. dañ ko dul gis ba koy sàcc. wala fañ koy aj. <laughs> non duñ ko mën a accéder. duñ ko mën a accéder non duñ ko mën a accéder. ça c'est sûr alaaji mën nañ ko billaahi maa ngi ñaan Macky Sall ak nguur gi nañu jóg ci loolu. dimbali leen suñu policiers yi ak sunu gendarme yi bëgg nañu réew mi am kaaraange waaye def leen caméra ci mbedd yi ñenn ñiy def na ko su dul noonu ñu leen di gis di leen mën di daan. mën na nekk kon léegi kontaan naa nag. kontaan nañu ci ñëw bi nga fi ñëw waroon nañ koo gën a yaatal. école bi fu mu ne. waa école bi seer. école bi. waaw mi ngi Yoff route de l'aéroport côté Yoff deuxième étage. waaw numéro téléphone bi 33. 29 rue de Yoff. Euh, waaw 29. rue de Yoff waaw vingt-neuf route de l'aéroport côté Yoff deuxième étage voilà donc numéro euh, numéro téléphone bi 33 868 12 12 fax bi aussi 33 868 12 12 cherul pour inscrire euh, euh, moom SIAP 1 bi 15 jours mooy 150 000 SIAP 2 15 jours 250 000 SIAB 3 350 000. ah yow daal ci fukki fan ak juróom mën nga ci former nit donc am na yu 180 000 am na yu 50 000 am na yu 100 000. am na deux jours deux jours c'est possible. mën na ci former par parti secourisme. par ci niveau daal nit ki secourisme. bon yow yow en général sa xel neex na parfois parfois ça dépend. waaw ku mel ni yow. waaw xam nga sa xel. mën na yow moom. deux jours de forme la mais Cheikh Ndiaye moom quinze quinze jours. ah un mois. un mois soxna si nag. nag ñu ko gërëmal xam nga tax ñaan dama doom bàyyi. ami ñaan moo mën léegi nii. Euh, xam na ni nit ñi am nañ ganilaa bi nee ko gis nañ ko maak alaaji mi xotti nañu ak seex ak ganilaa yoo xam ne maa day taal. kontaan naa kontaan naa da na ma ah, eh xanaa yaay sécurité non <laughs> kontaan naa balaa aéroport. ok xam naa du ma la mën a gunge ba aéroport. loolu moom c'est sûr. Ah. c'est sûr mais kontaan kër gi sa kër. amul problème ñu France sax. au plaisir bonol ngi waaj a am. dinañ fa ñëw bonol tour. États-Unis France Allemagne. dinañ fa ñëw Gabon fu ne. ak booy Québec fu ne. Canada ak. jërëjëf waaw <laughs> Mouhamed Gueye. leer na seeti. bu ma la doon tuur nii léegi da nga da nga ciy génn wala. da lay lekk de. est-ce que xool mbaa doy <laughs> come.